clair néew ma fi dans les a politiciens ak yu ñuy wax yooyu néew ma ci ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est de mettre le Sénégal sur les rails alors. Ah que demain le Sénégal à la tête de l'Afrique de l'Ouest fasse partie des dix plus grandes économies du monde et c'est possible euh, loolu loolu loolu lay liggéey vous êtes candidat la candidature déglu mais mais la ci parrainage yëngatuwoo ci bu baax yaa ngi wut ah bon oui vous avez 2019 bett nañu c'est vrai on était assommés man je savais même pas lire une carte d'identité ça m'avait jamais intéressé bon. donc yow da nga def sa parrainage sans tambour ni trompette. mais oui parce que man j'ai compris comment ça marche j'ai compris comment ça marche quant aux législatives le PDS ñu wax ne ñoom ñooy yóbbu ñoom ñooy toppatoo parrainage parce que c'est un grand parti on a eu des difficultés ils sont venus dans mon siège mm. parce que nag su may wootee discipline à organisation war naa au moins mën ko refléter un peu on y a réfléchi c'est quoi ah, j'ai mené des enquêtes ñu jàngal ma carte d'identité ñu <laughs> commencé et cetera le système j'ai réfléchi mais pourquoi euh, quelque chose qui m'avait frappé sama jarbaat bu ma yar. 2019 mhm. mu parrainé ma xam naa ne xanaa kenn du parrainé kenn ñu rejeté ko ma gis ko ci rejet yi ay turam su mu jaaxal ma. nga dem xool nga dem xool j'ai réfléchi on on a réfléchi et on s'est dit voilà léegi nous on va s'organiser autrement. vous êtes bien organisé. je pense. ah le 10 décembre le le le 10 décembre. le 10 décembre donc ñun donc ci par bien que le